seetaan li am léegi ci diggante tafsir Abdourahmane Gaye Chérif ay dara ci weeru koor ak ngëneel yi nga xamante ni moo ci nekk ñu ñaanal leen war nanu ndaxte ñaara ngi ñoo xamante ne ni seen lépp ci yonent bi rek lañ ko teg nañ leen ko waxe woon ca ba nuy tàmbale te tey ji lépp ci yonent bi lañ koy waxtaane ndaxte waxtaane ci yonent bi mooy waxtaane ñiy sopp yonent bi nan leen ko digge woon démb tey dañuy ñëw ci koo xamante ne ni liggéeyam dundam taxawaayam ci àdduna lépp ci yonent bi la ko teg ci sunna kooku mooy xaadimu rasul sëriñ Touba liggéey loo xamante ne nii tey buñ xoolee boobaak léegi li am bi mu fi bàyyee kook tey li naan ku yokkul yaa wàññi waaye yaakaar naa ne yokkute am na yokkute googu nag mbokk yi tey bëgg nañ koo waxtaane am waxtaankat bu mag taalibe bu mag ku sopp lool sëriñ Touba nongu léppam mu di sëriñ jóob bu Bichri mbokk yi ñu nekk ci plateau bi ak ñi nga xamante ni yaakaar naa ni ku ne ceddo murit sadi di nga xamante ni woo nanu ku sopp sëriñ Touba bu ne maam Cheikh Mbay bi nga xam ni tey ji mbindam sëriñ Touba dina fi jib ci lu bari ma ànd ci nag ak samay rak samay jarbaat ndaxte bu nu tuddee sëriñ Touba tudd Bijou ngoone xam nanu xolam ak taxawaayam ci njabootu Xaadimu Rasuul xam nanu ki nga xam ni moo di si di Fall dëkk Njaareem di taalibe sopp lool lu jëm ci Xaadimu Rasuul moom it mi ngi ci plateau bi ñu ngi ak soxna astu mi nga xamante ne nii moom it saa wu nu toogee fii li muy nekk nekk xale xam na nu taxawaayam ci diine te jigéeni réew mi ñu jara sargal lanu ndaxte gis nañu taxawaay bi nga xam ne moom la ñu am ci lépp loo xam ne laal na diine ñu toog ak sunu jarbaat sunu xarit Kati Chimère moom tamit ci wàll woowu mu am ci xalaat bu rafet ñu war ci waxtaane tey jii xaadimu rasool mbokk yi tey loolu lañ leen nuyoo xam ngeen ni 2STV nag ni nu ko defee rek ci weeru koor gi boobaak léegi lépp ci koor gi la koor gi bari ay ngëneel lool ngëneel yooyu nag la ñu bëgg waxtaane jullit yi xam li nga xamante ni nii xëy na xamuñu ko woon waaye bëgg nañu tey si Ablaye waxtaan nañu ci Serigne Touba taxawaayu ndaw akum njàng ndaw ci daara bëgg nanu mu waxtaan ak moom ci Serigne Touba ak économie ndaxte gis nanu Touba village la woon léegi nekkatul village léegi bu lan bu nu mënoon nañ ko def def def commune wala département commune lañ ko def waaye mënoon naa nekk département ndaxte bu nu xoolee lii village yu toxoo fa nu dëkk daw jawali Touba te bari na ay dëkk yu dennandoo woon ak Touba mais sur le plan économique tey jii dem nañu ba Touba romb leen. loola nag ab liggéey la mu di liggéey bu am solo boo xamante ni ni tey sëñ Ablaye Diop Bichri dina ci waxtaan ak ñun waaye yaakaar naa ni duma def lu dul nuyu sama xarit sama soppe Bijou Ngoné tey bisa ngi boo xamante ni ni bisu guddik Serigne Touba la fii ci 2STV. HBK euh, du ma def lu dul di la delloo nuyoo bi. Euh, di nuyu mbokku téléspectateur 2STV yi ñuy seetaan yëpp di nuyu kilifa yi nga xamante ne euh, ñu ngi toog boobaak léegi ah euh, wax dëgg yàlla di teewlu li nga xamante ne mooy plateau bi ñu war a fas yéene jagleel ki nga xamante ne moom mooy Cheikhul Khadim tey weeru koor gi ah atum ren ñu gis wax dëgg yàlla foo dem ci réew mi rek ak ci yeneen plateau yu bokk la yi ñu ngi ci waxtaanee ku tedd ki ah euh, waaye lépp day firndeel rek HBK yi li ngay wax léegi bi ngay nuyoo muy tànki kanam yi nga xamante ne euh, euh, Serigne Touba am na ko ndax wax dëgg yàlla yoonam wi amul tànk ginnaaw

muy bis boo xamante ne euh, wax dëgg yàlla Serigne Béthio daje woon na ko ak Serigne Saliou. Mhm. Euh, muy daje bu ñuy am à chaque fois euh, foofu ca Tasset. Mhm. ñu koy wax Madinatu Salaam. ñu leen di nuyu bu baax di delloo njëkkal ki nga xamante ne moom mooy bi nga xamante ne moom lañ fi teg mhm. muy Serigne Saliou Thioune Gueule Tapée di nuyu mbokku taalibe yi ñuy setaan yépp te xam ne que saa suñuy waxtaanee Serigne Touba Père Bécaye du du yomb du yomb waaw du yomb ñu ziyaar bu baax xalifa bi sëñ Muntaxa ñuy ñaan yàlla yàlla bàyyi ko fi mu wér lool di ko jaanal njabootu Serigne Touba yëpp ndaxte mooy li nu wax léegi rek sëriñ Touba def na ba fi loo xamante ni dootul deñ ah bokk ci wàllu woowu nag def di loo xamante ni lu nuy sante sunu borom la. ba tax na Pape Sidi dëkk Njaareem Pape Sidi Fall doonu Baye Fall. tey jii boo taxawee. ci ëtt boo xam ne ëttu Xaadimu Rasuul lañ fay waxtaanee yaakaar naa ne xol sedd na. comme ni ñu ko waxee woon la dernière fois rek ce plateau est dirigé par un maître. Mhm. Euh, université la ci ñun ñu am mbégte ñun tamit di bokk ak moom plateau bi di nuyu mboolem sénégalais euh, ci programme mu télévision ak weeru koor gi Chérif Mamine Aïdara ak Tafsir Abdourahmane Gaye gis ngeen leen ni ñu doxalee noonu xam naa la ñuy wéyale ci même siège bi ndax mu noo wax Serigne Touba te waxoo yonent bi ndax mooy xaadimu rasul. Mhm. ak ci fenn fu mu jokk ci biir àdduna war na ba. ñu mën koo jëriñoo loolu moo tax sabab plateau yu mel nii yàlla boole ñu ci ñii mu tànn ñu bokk ci xëy na du suñu mérite wala du suñu euh, lu ñu nekk taalibe am na ñu gën a xëy na nekk taalibe wala lu ñu gën a extraordinaire waaye dafa nekk ci suñu domaine de prédilection mu fekk ni ci zone bi ñu mën a taxaw teewlu ba bu ñu déggee lu ñu lënt ci suñu xel ñu mën koo jébbal ci ay laaj ndax oto lu mu xat-xat nuyul ma saa yaay xacca ah, ah ziar naa la di wax yow sama patron kontaan naa si trop <laughs> Ah, ah, yow yow yow yow yow ku baax nga <laughs> ah Touba ca kanam rek ah soxna Astu nuyu nañ la bu baax. di la ziar ndaxte gis nañu suba ba léegi yaa ngi ci liggéey. dëgg la ah célébrité. ay religion nga nekk ci di nemmeeku gars yi di. ñëw di ko won Sénégal mhm. te loolu da di lu am solo ndax day yokk alxuraan day yokk koor day yokk jullit nuyu nan la macha papa Bécaye ñu ngi lay fay bu baax a baax a baax di wax rek comme ni ñu koy waxee saa su ne dañu amaan mbégte ak euh, contentement baax a baax ak une grande fierté bokkaat ak yow plateau bi nga nekk suñu wayjur ñu yàgg laa sopp macha allah tey suñu borom defal ñu euh, li nga xamante ne mooy xéewal ak chance ñu bokk ak yow plateau kon mënuñu lu dul am honneur macha allah di toog fii ci plateau bi tey ndax ni ko comme ni ko Pape Sidi waxee rek euh, amaana du suñu mérite parce que am na ñoo xam ni amaana ñoo ñu gën a mën a ñu gën a yay ñun ndax ay ndaw lañ rek di soog a dox di jàng kon dañuy sant yàlla bu baax a baax alhamdulilah di nuyu ñi ma bokkal plateau bi ku ci mel ni Bijou Ngoné suñu mag di nuyu Pape Sidi Fall Kati Chimère ak suñu invité yi nga xamante ni tey ñoo fas yéene ñoo ngir waxtaanee ci guddi gi tey ki nga xamante ni macha allah amaana xëy na wax wax ci moom sax euh, xajul ci benn plateau mhm. parce que li mu li mu def ëpp na benn plateau ëpp na benn guddi mais xam naa dañ ci waxtaanee li nga xamante ni rek lu mënta ñàkk la doon may wax téléspectateur bu kenn zappé na ñëpp toog parce que borom guddi gi na seetaan na bàyyi xel te yaakaar naa rek njëriñ dina ci ko mooy nuyuwaat encore une fois téléspectateurs yi. ñu doxal ko ci kanam dina bu soobee yàlla. ndaxte ki nu jàkkaar lool. ndawam jaar jaaram lépp sëriñ Touba mu di ab Abdoulaye bu Bichri waaye ñu ngi yëg ci plateau bi koo xamante ne ni ceddo mu di saadi ceddo bis bii da di bis boo xamante ne ni bisu Xaadimu Rasuul la. Mm-hmm. ndax la ci woo rek woo na la fu la neex. ñu lay nuyu ñu ngi lay delloo ab nuyoo bu bu baax alaaji Bekaay euh, di wax asalaamualeykum aleykum rahmatullahi taala wa barakaatuhu di jiital ci sunu nuyoo sunu sang bu baax bu tedd ba ca Touba. Uh-huh. Cheikh Mouhamadou Mountakha di ci teg Cheikh Mouhamadoul Bachir mi yor kàddu yoon bi. Uh-huh. Euh, waaye di nuyu ku tedd ku ñuy wax Serigne Ahmadou Badawi doomi Serigne Fallou la. moom liggéeyu université bi. Mhm. lu ci bëri ci luñ ciy def ci moom lañ koy jaarale. bu baax euh, di ko sant bu baax di ko gërëm ndax moo jiite kuréel bi ñuy wax raw Rawdu Rayaahin nga xam ne ñoom sëñ Ablaye ñii dañuy jokkook ñoom ci lii nii. Mhm. am nañu ci ndigal bu baax te yëgoo nañ ci ak ñoom. Mhm. kon loolu doy na sëkk ak cant waaye sama sama sang bu baax bu tedd ba. Serigne Cheikh Saliou. Ah, ak rakkam. nga xam ne ci moom laa sukk jébbalu yaakaar ko teeg ëllëg muy Cheikh Mouhamadoul Bachir euh, bu loolu weesoo itam bis bi dafa spécial waaw ndax euh, Cheikh Béthio Thioune bis bi la daje woon ak Serigne Saliou mm-hmm. di ko màggal boobaak léegi 46 ba léegi ak njabootam euh, ci xilaafa xalifa bi nga xam ne mooy Serigne Saliou borom digal jiite ko mm-hmm. waaye suba Serigne bu Mbacké ci la feeñ Mhm. waaye sëriñ jiili mu sëriñ fàllu itam suba mooy bis bi dajeeg làqoom kon ba tey ñooñu ñëpp ñu sàkku ñu ñaanal leen fu waay toll rek bu ma nee faatiha ak fukki lixlaas ak benn ak salaatu ala bi bum man mu ñaanal leen ko ah. te seen njaboot euh, seen taxawaay rafet mhm. macha allah ñu ngi saytu bu baax li leen seeni i way juri wàccee alaaji bekaay ñu ngi nuyu réew mi yëpp waaw fu waay ne kilifa diine kilifa aada. waaw di bég lool ci jataay bi itam. ci jataay bi te njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall am na ko ci wàññeeku. njabootu Cheikh Ibrahima Fall dañ leen war a beral nuyoo sax ci bis bi. ndax weer wii. Mhm. Serigne Touba waxoon Cheikh Ibra ne ko na koy teeru. di ko bijjanti. Mhm. fu mu toll te di ko teral. mooy togg yi nga gis ñu di ko def. mooy ndogu yi ndogu yi. bee ko woo ba mu ñëw mu ne ko suba dina am gan. Mhm. te damaa bëgg nga teeru ko. di ko teral te bijjanti ko. Cheikh Ibra ne ñaata fan la ñu ne ñu ne ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci baraxlu mu ne suba ku seenu weer gis ko ku seenuwul weer gis ko ndax sëriñ Serigne ba gan gi muy wax mooy weeru koor bii weeru koor moo tax Cheikh Ibra moom euh, fi mu ne nii bu ñu korité ba ca ëllëg sax mhm. sëriñu Baye Fall boo ñaan dërëm du ko am am lépp def nañ ko mu ne lépp dañuy miiraas seen bopp. sëñ Cheikh Jëmb Fall ca bopp ba. waaye sëriñam di Xadi. Euh, sëriñ Cheikh Fall Mbawar ak i rakam. rakam sëriñ Fallu Fall mu sëñ Abdou Sakkoor kullim rek. xam ne fukki këri Cheikh Ibra Fall yi. am nañu taxawaay bu yéemee yéeme ci weeru koor bi ci weeru koor te lu ñu toggit ci kër sëñ Bàmba yi la jëm. waaye bu fa xesee ba àgg. nga xam ne moo mën a dënale. waaw bilaay wax mooy mooy dundal waa Touba gépp Touba gépp loolu loolu loolu yaakaar naa ni soxla sopp nan ko lool mhm. ci diine mhm. te ku dem tuubaa gis na ni séddalee ñam nga xam ni dëkk bu barkee la nii mhm. waaw ñam nin koy joxe doomi aadama ak teraanga loolu da lu ab jullit war di damoo kon yaakaar naa ni mbokk yi ci kanam tuuti dina ñëw ak Cheikh Abdoulaye waaye ñu nuyu sunu jigéen sunu jarbaat sunu xarit kat chimère Kat Chimère bis bi bis baa ngi nii di bis Serigne Touba tey. waaw euh, Papa Bekkay maa ngi lay fay bu baax a baax di nuyu euh, ñi ma bokk plateau ñëpp di nuyu suñu invité yi di nuyu Astou Pape Sidi. Bijou Ngoné comme ni ko Astou waxee sànq rek euh, vraiment c'est une fierté bokk ak yow plateau parce que yaakaar naa ne bi ñuy nekk ay tout tànk dañ la daan suivre di la xool di la bàyyi xel bu baax a baax donc euh, même Bijou aussi euh, dañ ko doon bàyyi xel bu baax a baax vraiment bien vrai que ay sœur lañu mais aussi jàng nañ lu bari si moom donc may nuyu képp koo xamante ne mi ngi ci biir këram toog di ñu seetaan ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen baalu ak encore une fois te euh, bés bi bésu weeru euh, mois bi ñu nekk nii mois wu sell la weeru koor. Mhm. donc maa ngi koy jagleel képp kuy jur mhm. di ko jagleel képp kuy parent. parce que mhm. defe naa euh, ginnaaw yàlla su dul woon ay suñu ay parents donc tey du ñu egg si ba fii. donc ñoom ñëpp maa ngi leen di baalu àq. di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax. guddi Serigne Touba nag kenn mënu ko waxtaanee ci benn plateau. déedéet mën ko waxtaanee aussi ci benn guddi tamit. donc dañuy jéem a cof rek jéem a poser quelques questions ñu xamal ñu jàngal ñu kan mooy Serigne Touba. tey loolu la bëgg a xam. Mhm. takkin fi teg yaakaar naa ni ku nu ko mën a waxal. ku ko la. ku ko mate la. Mhm. doon na taalibe dundam wax naa leen ko lépp ci Serigne Touba la lu mu am sëriñ Touba lu mu xam Serigne Touba dinañ ñëw léegi ci maam Cheikh waaye balaa ñoo ñëw ci moom ñu nuyu sëñ Ablaye ñu ngi lay nuyu bu baax. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. waa kay Alxaaji Bekaay ginnaaw bu ñu sante yàlla. Mhm. julli ci yenant bi alayhi salaatu wasalaam sant cheikhul xaddim di ñaanal sunu sang bu tedd ba ca Touba. Mhm. di cheikh Mouhamadul Muntaqa Bachir mi tooge toogaayam mhm. ñaan sunu borom dolli ko wér dolli ko kàttan bàyyi ko sagoom ba naal bi mu naal te naalal ko islaam bépp mhm. mu am ci ndam lu féete kaw njortam te su gestoo gis nu ñun ñëpp te yàlla tàggat nu dimbalinu jàppale nu ba nu mën a tënku ci ay ndigalam ndax ku tënku ci ay ndigalam tënku nga ci ndigali sëriñ Tuuba ñu koy ñaanal wér di ko ñaanal mboolem ay rakkam bi ca beral nuyoo sëriñ Cheikh Ahmadou Mbakke moom sëriñ Chouaïbou Mbakke ngeen koo miin ci sëñ Cheikh Say ndax ci kër googu laay ziyaara fa laa yaakaar di nuyu rakkam ji nga xam ni moom la ma yàlla booleel muy mhm. sama bunt ci sëriñ bi mhm. di sëriñ Hamzatu Mbakke mu sëriñ Chouaïbou di ñaanal jabootu sëñ Tuuba gépp di leen nuyu mhm. waaye di nuyu tam suñu jëwrin alaaji ahmadou mbàkk yu fay xam ngeen ni ci këram laay liggéeyee sama nijaay waaw muy nit ku baax di jëwrinu xalifa bi ci Dakar gépp nu ngi koy beral nuyoo euh, di la sant bu baax di nuyu borom kër gi dëgg la euh, sëñ El Ndiaye di ko ñaanal ndax mu ngi sédd diine mu ngi sedd yoon wi mm-hmm. te bu yàggul ñëw nañu fii am fi jataay bu am solo ci lu jëm ci tuubaa ca kanam lépp ci jàppandalam mm-hmm. te as gor du fàtte lu baax mm-hmm. kon yàlla na ko yàlla fay te yàggal taxawaayam di la nuyu alaaji Bekaay bu baax ci sa mbaax ci sa dal ci sa wax ju baax sa wax ju rafet kenn mësta dégg fenn foo waxee lu ñaaw lu ñaan nii te réew mi ñoo ko bokk te nit kuy wax ñaari juum yomb na ci dëgg la waaye nag loolu day wane rek ni jikko ju rafet jee xol bi li muy ëmb moo tax wax ji rafet mhm. yàlla na yàgg lool ci barkeb sa turandoo seexal bekaay nu ngi lay ziyaar bu baax di bég ci ànd ak yow plateau bi jërëjëf beral nuyoo nag <laughs> ñi ñu bokkal ñëpp plateau bi bàyyiwuñu ah, kenn dëgg la ñu ngi leen di nuyu di leen sant Pape Sidi ñu ngi koy ziar. Mhm. ziar euh, bisu Kone. Uh-huh. ziare sëriñ Thierno Moulti Sadix. waaw Sadix Soxna Assu. Soxna bu baax. Euh, ah, catéchumène waaye beral nuyoo sëñ Cheikh mbay mi nga xam sama jàngkat la. bala ma lay jox kàddu gi nag ma sant Serigne Oustaz Souleymane Samb. waaw day sama xarit bu baax. Mhm. këram laa waaj a ñëw fii. Mhm. di ma jàppale ci yu bari. waaye beral nuyoo Serigne Thioub gay ca Mbour. waaw taalibi sëñ Touba bu dëggal. waaw taalibi sëñ Touba bu tabe. taalibi sëñ Touba bu yoon wi jaral. yàlla na ko yàlla sàmm amin kunu sunu soppe la amin jataay bu nuy def dañuy waajal di nu taxaw di nu seetaan dëgg la koy nuyu nuyu waa réew mi yëpp nag waaw nuyu kilifa diine yëpp ma kenn dëgg la nuyu ñi ca bitim ñëpp dëgg la nuyu ñi ci kër géeg ñi ciy liggéey yàlla yàlla fay ñëpp ndokkeel jullit yëpp ci weeru koor gi di baal ñëpp ak di baal ñëpp yàlla nañ yàlla nangul amin yàlla nangul ma nuyu bu baax sëñ Moussa Nawel mhm. ah moom xarit la sama papa bu ma bëgg la ma ñaan nuyu ko sëñ Moudou Habib Mbacke maa ngi koy nuyu bu baax di nuyu sëñ Abdou Karim maa ngi koy ziar. Mhm. ah ñooñu sopp nañ ma lool njaboot sëñ Fallou gi maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp. waaye dañuy daal di dugg ci biir waxtaan bi réew bu ñu koy defar ay ndaw lañ ci tàggat. Mhm. waaw mbindam Serigne Touba. ci ndaw muy jàng ñu war koo tàggat melokaanam lañ bëggoon nga waxtaanal nu ci. Ah, leneen lu ci luñ ci mën a yokk ci mhm. laajit ñoom bu soobee yàlla dinañ la ko laaj. jërëjëf Alaaji yi wax nga lu am solo muy mbindum Serigne Touba Xaadimu Rasuul ndax day jëmm joo xam ni li mu wax ni mooy karaamaam. waxul ni julli gi ma julli ci géej gi mooy sama karaama déedéet. waxul ni gaynde gañ ma booleel gaynde ga waaf mooy sama karaama déedéet waxut loolu. Mhm. waxul fuur bañ ma dugal mooy sama karaama waxul. dund gi mu dund nga xam ne léppam miracle la waaye dañu miracle daal bi dañ ma koy waxal mhm. nañ jël sama mbind mhm. sama mbind mooy sama miracle mhm. a rëy karaamati xattu yat yi sama karaama sama miracle mooy sama mbindum loxo lu tax mu wax loolu ndax mbindum loxoom dafa bàyyiwul benn fànn ku ne ak aspect bi la tax a jug soo ñëwee ci sëñ Tuubaa jariñu ci mbindum loxoom nga laaj ma nag lu jëm ci ndaw ñi ndax réew pour mu jub faaw ndaw ña tege ci aw yoon réew ngir mu développé il faut ay ndawam jàng réew pour mu développé ay ndawam faaw ñu bëgg a liggéey nangoo liggéey réew pour mu développé il faut ay ndawam yaru te yooyu yëpp kenn mënu koo def euh, te jaaro ci njàngaleem sëñ Tuubaa ndax moom bàyyiwul dara nga laaj ma ndaw ñi dafa wax ak ñoom ci téeréem bu ñuy wax tazawudu sigaar wa ca demee ca ubbi ga sëñ Tuubaa dafa wax na yaayu xas sibyaan laa tastaxilu an il huda wa bil ulumi staxilu fastaxilu bil xifzi wa tilaawa wajtanibu majalisa saqaawa wa laazimu man laa yazaalu aabida li rabbihi ila hudahu qaa'ida fa kullu man baadara waxta sigari ila al huda staraxa waxta al kibari wa man tadaaraka allazi qad faata min al lagaa wa amara al awqaata bi tawbati nasuuxi wal iqbaali ila al ilaahi faaza bil kamaali hëekum nasihati lakum fa tarbahu dunya wa oxra maa qawmin aflahu loolu doy na sëñ Tuubaa nee na yaa ayyuha sibyaanu yéen ndaw ñëpp laay waxal yéen jeunesse bépp déglu leen yaa ayyuha sibyaanu mel ni dañ ñu ko mbàkke loo bëgg a wax ak ñun mu ne laa tastaxilu anil huda maa ngi leen di dénk bu leen soxlawoo lu dul njub kon li njëkk li mu dénk ndaw ñi mooy bu ñu soxlawoo lu dul ak njub droiture ñu jaar ci yoon wu jub bu leen soxla woo lu dul njub waaye wa bil ulum istaxilu wastaxilu bil ulum xam nga dafa am ci arab lu ñuy wax mufrad jàngkatu grammaire yi ñu ngi may seetaan am lu nuy wax jam bu dee ci jàng nasaraan képp da nga koy wax singulier ak pluriel mhm. loolu lañ koy woowee ci arab léegi sëñ Tuubaa waxul fastaxilu bil ilmi na ngeen soxla woo xam-xam bi waaye na ngeen soxla woo xam-xam yi la wax kon pluriel la indi pour war la ni kon domaine yëpp war ngeen cee géeju war ngeen a jàng mu jaral leen ko ndax nit su bëggee taxawal ëllëg lu dëgër lu dootul daanu day am xam-xam bu wér nga xam du làmbatu bu ko tegee kenn du ko mën a daane mhm. mu ne kon dénk naa leen xam-xam yi bëgg nag ñi war a jàng sax xam mbay ñu jàng ci ko mën cee liggéey mhm. bëgg na ña nga xam ne ci secteur informel bi la mën a liggéey ñu géeju ci ba mën caa liggéey ëllëg ña nga xam ne ci bind la ñu mën ñu géeju ci mën caa mën a xam ne ñuy binde ña nga xam ne tey ci wàcc alxuraan sax mën nga ci jaar def ko ab liggéey kon domaine yëpp bàyyiwul benn xeetu xam-xam bu nit di jàng rek mu mën laa jariñ digal naa leen te du yàq dara ci sa diine na ngeen ko jàng ji xam ko ndax yanantu bi alayhi salaatu wasalaam waxoon na ni ilmu kulli shay'in afdalu min jahlihi mbir mu doon xam nga moo gën ñàkk gaa xam di ca seer mhm. kon xam gi dafa baax sëñ bi ni kon yéen ndaw ñi dénk naa leen ci xam-xam yi wa bil ulumi istaxilu fastaxilu bil xifsi maa ngi leen di dénk ngeen mokkal alquran maa ngi leen di dénk ngeen mokkal xam-xam yi ngeen di jàng bu leen ci am paresse bu leen tàyyeel lu ngeen jàng na ngeen ko wattu seen bopp mokkal ko mooy bil laa wattilaawa na ngeen di yër téere yi xoolal jeunesse bi ñu am fii ci Sénégal mhm. li ëpp ci jeunesse bi nangootunoo yër seeni téere duñ jàng koo ci jox benn livre bu koy jariñ lu mën a liir mu dolli ko du ko xool moom mu ngi préféré nekk ci lu ko dul jariñ def ci ay heures yu baree baree baree bari ci loo xam dara baaxu ci fo rek lay doon. kon dégguñu sëñ Tuubaa bu ñu ko déggoon seen itte mooy jàng tey mokkal li ñu jàng. moo tax mu ni wa bil si wa tilaawa waaye waj tani boo majaalisa saqaawa maa ngi leen di dénk na ngeen moytandiku jataayu texee di jataayu texee di. jataayu texee di. xam nga texe dafa am texee di am. texee di am mooy ku texewul. koo xam la muy toog wóor na ko ni bu ko ca dee fekkee kenn du am ci moom yaakaar. Mhm. te tey bari na ci sunu jeunesse bi. tey jii duggal ci bëri bi ñuy carte xaalis jeunesse bu mel noo lañ am ñu ngi carte rek di carte xaalis rek ci lañ jaakaar am ci lu yomb te arab may sir la ko tuddee carte mooy lu ñu yombal buñ delloo ci alquran yàlla dafa wax ni yaa ayuha alladina amanu innama alxamru wal maysir wal ansaab wal azlam rijsun min amali shaytaan fajtanibuuhu laalakum tuflihuun ndax innama yuridu shaytaan an yuqa baynakumul adawa wal baxda fil xamri wal maysir wa yasudukum an zikrillahi wa an salaat fal antum muntahoon ca suratul maida yàlla nee na euh, wéy gëm ñi maa ngi leen di dénk na ngeen daw naan sàngara na ngeen bàyyi carte xaalis gis nga mu ko dendalee naan sàngara ak carte la làngale ak jaamu ay statuette nga xam da leen a boolale ak xeeti carte yi nga xam ne ay bant la ñuy teg di dugal euh, teg teg yeeg yooyu yëpp da ko tere sëñ Tuubaa wax nag ni kon ni ngeen bàyyi jataay yu wéy texee di jeunesse bi li ëpp ci ñoom lu yomb la ñuy doxee dañuy dem di dugg ci béréb yi di carte mhm. te am na jeune bu ñëw ci sëñ Tuubaa nuyu mhm. fekk sëriñ bi njaari mu jox ko lox li mu nuyook moom ni ko Mbàkke man de yàlla dafa dogal sama baay bi ma jur dafa faatu dafa génn àdduna ma doon sukkandiku ci sama ndey sama ndey génn na àdduna ma dese woon sama nijaay moom tam ren jii la génn àdduna mbàkke lii tiis na ñàkk naa ñëpp ma xam sa mbaax gi nag ak sa de ma bëgg ñëw sa kër toog fi féete wook yow def la ngay sama baay def la ngay sama ndey def la ngay sama nijaay sëñ bi ni ko wax ji yéeme na lool waaye dama laa bëgg tontu lu yéeme ngir ñëpp jàngale ci daal di woolu ku ñuy wax seex Balla Faali Jeng taalibeem la ab seex mu ñëw mu ni ko wool ma fere ñu jege si daa jëmm ju fi ñëw wax ma lu daw yaram te li ma koy tontu mën ngeen cee jànge àdduna ak alaxira bi oh. ñëpp dajee sëñ bi ni ko dellul ci li nga ma waxoon mu ni ko sama baay dafa génn àdduna ma doon yaakaar sama ndey mu génn àdduna ma dese sama nijaay moom it ren la génn àdduna ba bëgg a ñëw ci yow Mbàkke def la baay def la ndey def la nijaay sëñ bi ni ko loolu jarul toog fenn kaay ma jox la aw yoon mhm. soo jugee na nga dellu ca kër ga soo demee dénk naa la na nga def jaamu yàlla muy sa baay nanga def liggéey muy sa ndey mhm. na nga def doylu muy sa nijaay te ngay ñëw di ma ziyaare waaw waaw dénk naa la mm-hmm. jaamu yàlla na nekk sa baay liggéey na nekk sa ndey doylu na nekk sa nijaay te ngay ñëw di ma ziyaare mm-hmm. kon sëñ bi lim nu digal mooy lépp loo xam ne lu yàlla tere la jataay boo xam ne boo fa jógee mën na laa jural safara mm-hmm. rik waa yow ndaw li bu fa dëgmal bu fa toog mooy majaalisu saqaawa mu ne walaazimu man laa yazaalu aabida li rabbihi ndax ilaahu daaw xaa ida soo ida ilaahu daaw maa ngi leen di dénk su ngeen di wut euh, référence repère mm-hmm. bu leen àndee koo xam ne nekkul ci topp yàlla tey ñaata ci jeunes yi ñoo sànk ci topp ku leen mënalul dara dara mooy déggunu sëñ Tuuba mm-hmm. dafa wax ni yéen jeunes su ngeen di wuti ku ngeen di topp na nekk ku leen di jaamuloo yàlla seen borom na nekk koo xam ni day tege ci aw yoon ndax moom sëñ bi de bi muy jógee Jolof di ñëw njaareem dafa woo mag ñi ni leen kaay leen ma dénk leen dañuy bëgg a dem ca dëkk ba ma bëgg leen a wax nuñ fay nekkee buñ fa àggee incha allah mag ñépp def jataay di béer jooju sëñ Touba tomb ak ñoom waxtaan ak ñoom daal ni buñ demee njaareem ca dëkk ba damaa bëgg ngeen sax ci nangoo liggéey te bañ di yàq damaa bëgg ngeen di jaamu yàlla seen boroom damaa bëgg ngeen di dimbalante damaa bëgg ngeen rafetal seeni teggin damaa bëgg ngeen sax ci ak maam te jub daal di wax ni maa ngi leen di dénk ku ci bëgg juboo ak yàlla ba loo ñaan yàlla defal la ko rikk waaye na nga sax ci jàng alquran te bul ko wutal àpp ku bëgg saa ñu la dencee ci bàmmeel comme dee du ñàkk doo fa am benn mugalu sunu borom maa ngi lay digal na nga sax ci bari looy julli ci turu yenant bi alayhi salaatu wasalaam salaatu ala nabi na nga ko bari day tax kenn du la mugal ci bàmmeel sañ Tuubaa koy wax mm-hmm. parce que yéene naa nag li ma fi wax lépp waxi sëñ Tuubaa yoon ba jataay bi jeex mu ni dénk naa leen ku bëggati soo jógee mbooloo di la topp na nga jaar ci yoon léegi leen di problème bi alaaji Bekkaay mooy da ngay ñàkk a jaar ci yoon ba pare bëgg mbooloo sëñ Tuubaa nee na ku bëgg mbooloo di la gunge saa soo jógee na ngay jaar ci aw yoon ndax ñàkk a jaar ci yoon day tax man ngaa réerle doo ko for kenn du la ko foral jox la ndax kenn du la dul gis Mhm. te ku jaarul ci yoon doo dajeeg kenn doo dabe deesu la dab te yoon ñett ci am dangay ngay dabe wala ñu dab la wala nga daje. Mhm. ni boo jaarul ci yoon benn nga ci dul def. Mhm. cim ñàll nga jëm. te ku mujj ciw ñàll fii fan la rek ngay mujj ci say wax. kon rikkuwaay ku bëggati mbooloo di la gunge jaaral ci aw yoon. sëñ Tuubaa ne maa ngi leen di dénk ku ci bëgg yàlla di la wërsëgal lum la joxati ci wërsëgam wi nang koy defaat ci jaam ñi te yàlla tax. est-ce que loolu dégg nañ ko réew mi am na fi ñu denc ay milliards. ci dëkk bu pauvre ni Sénégal. am na ñooñ bu ñu añee du nu reer. te boo nee Serigne Touba ñu yuuxu jooy ni la moom leenu gëm. te du ñu dimbali kenn mën naa am sax ñu lay làqutu soo waxee ak ñoom ñu wax la lu amut ngir poñetu àdduna. kon dimbalantewuñu te sëñ Touba noonu su ngeen bëggee wërsëg yomb leen lu leen yàlla wërsëgal na ngeen ci génne cëru ñi ngeen bokkal. seen boroom di ko def te yàlla mhm. mu ni dénk naa leen bu leen di tooñ mhm. ndax kuy tooñ doo mucc mukk te kenn mënulaa musal tey ak ëllëg jënu jëm dénk naa leen bu leen di fayu aw tooñ ak saa su leen suñ leen tooñee ngeen fayu du ngeen nopp lu mukk te kenn mën leen a noppal tey ak ëllëg jënu jëm dénk ngeen ko ñu ne waaw lii dénkaane na ko kon mhm. waxoon na ndaw ñi ni maa ngi leen di dénk ngeen moytandi ko jataayu texe bi te su ngeen di topp ngeen topp koo xam ni <laughs> man naa leen a yóbbu ci yoon wu jub nekk ci yoon ndax day jaamu yàlla di leen digal jaamu yàlla dëgg mu ni maa ngi leen di dénk nag képp ku ci nekk ndaw jël sag ndaw jox ko yàlla jeunesse bi ñu yor ñu néew léegi ñoo jox seenu ndaw yàlla waaye sëñ Tuubaa noonu na ku ci jox sa ndaw yàlla te yàlla tax ne ci lim mu bëgg soo nekkee mag moo la téyel sag mag nee na mu wax ni képp ku def ay njuumte yu bari tam bul découragé dénk naa la nanga farluwaat ci dab dabaatal li la rawoon ndax sëñ Tuubaa daana wax ni am xëy su ñaawee mhm. boroom day góorgóorlu ci ngont ndax xëy du amaat xëy du amaat <laughs> bilaay mag ñi ni tekk mu ne ndax xam ngeen luy am xëy mu ni ah. bëgg nañ koo xam mu ni am xëy mooy jeunesse ndaw mhm. am ngont mooy ak mag viees oh, mhm. saa bu xëy ñaawee borom day góorgóorlu ci ngont ndax xëy du amaat ku ne sa ndaw li ci ëpp dafa ñaaw ay erreur rek la mm-hmm. te soo duggee mag dootoo delluwaat nekkaat ndaw mag ci ngay jëm boo jugee ci mag dee rek a fees moo fi des kon nag da ngeen góor góorgóorlu ci seenum ngont ndax seen xëy du amaat mm-hmm. Mm-hmm. kon ndaw warta yàqu jeunesse am sëñ Tuubaa dénkaane wax ni yaa masara subaan in xiftum xajal fa qaddimoo taaluman ala amal maa ngi leen di dénk yéen waxambaane yi yéen ñi nga xam tollu ngeen ci ay 30 jëm 40 yéen waxambaane yi maa ngi leen di dénk ku ci ragal am gàcceeg mbooloo bul di waxati dara wala ngay jëfati dara te xam-xam bi science bi jiituwul action bi man daf noo digal bala nuy jëf ci dara mu fekk lu nu maîtriser xam ko door caa jëf loolu dénk na ko ndaw ñi nga gis ni ñi gunge sëñ Touba mi nga laaj léegi ak ndaw ñi ko gunge ci mission ba mission bi réussir réussite bu kenn mës ta gis bu ne mel bu ko ñaare dëgg la biñ koy gunge ay ndaw lanu maam Cheikh Ibrahima Fall mii buntu yoon bi muy jaayanteeg sëriñ Touba mhm. ci Mbàkke Kajoor vingt sept ans la am vingt sept ans waaw ne li coow lii réy wax jëpp ci bari vingt sept la waxe sëñ Touba lu ko kenn mës wax damaa génn sama kër ngir wëri ji yàlla sama boroom di ko wuti ji fuñ ma mën a yóbboo ci yàlla ma dem fa may topp leeram ba mu tegtal ma sa kër man nag awma ci yitte ku dul yàlla sama borom soo ma wanee fi mu ne rek ma dem fa waaye soo ma ko nul fii laay toog toppal duma ma la bàyyi mhm. kon damay wuti ji ku àgg te man maa àggale la ko wax te bi mu koy wax sëñ Touba vingt ans la am maam Cerno Baabul euh, euh, borom daarul Muxti borom daaru borom daaru maam Thierno. Mhm. borom bayteeg maqaama. bi muy demal Serigne Touba Ndar fanweeri at la taxaw jàkkaarloo gouverneur bépp wax ko waxi fulla ak détermination yóbbu yóbbante Serigne Touba delsi sëñ bi bi mu koy responsabiliser di ko dénk yoon wi di dem ci tukki bi 30 ans la am mu dénk ko jaboot gépp keroog bi fas wi rëpputalee dafa jël loxo teg ci bopp sëñ Modou Moustapha. jël loxo teg ci bopp sëñ Fallou ni dénk naa leen yàlla ak yanantu bi ak seen bàyyi Thierno ma dem te ñëw. Thierno dikk waaye na ngeen am jom na ngeen am ngor na ngeen am fit. te boobu maam Thierno fanweeri at. fanweeri at donc mu dénk ko yoon wi. ci ndaw ci ndaw. ñi ñuy tudd naan nag ñi. waaw bi ñuy gunge sëñ Touba di réussir ak sëñ Touba ay ndaw lañu. 30 mhm. ans 20 ans 27 vingt cinq ans ba ci 40 ans ñoo daan jaayanteeg sëñ bi. Mhm. am détermination nekk ak moom ba réussir dañu réussir kon sëriñ bi sunu ndaw yi réew déggaguñ ko boo xoolee tey ci wàllu ndaw ji nit ñi jàng jàng éducation. Mm-hmm. li sëñ Touba wax ak ñoom dangay dem ci téere bu ñu wax kun kaatima mm-hmm. mu wax la kuy jàng ban comportement wa nga war a am yow miy jàng di wuti xam-xam. waaw te tey jii saa boo xëyee ñu la étudiant ba moo gàddu jaas yi xeex. man mm-hmm. naa mun la murit laa. wala ñun la tey jii moom la ñu gis muy agressé wala moom lañu ñu gis mu dóor professeur am wala moom lañu fekk mu doon violé déggunu sëñ Tuuba xam nga lu mu wax ak ñoom kii jàng li mu ko wax dañu kun kaati man li durri wal buusaa tenan xasdan wa taalul jii la yaa mutaallimu laa tukshiru shakwa fa kun mutajallidan xatta tazunu naas annaka munaamu fal ilmu laa yuuta liman yaxsha tawan bal rabbuna abdan saburan yulhimu daawim ala darsi lulumi mutaalian yaa way a timsin li tawaa yatajamjamu laa tasdaxil bi risqi is rabbul wara mutakaffilun risqa allazi yataallamu waxshal ilaha li diinihi mutaxaafizan is laa yanaalu l ilma aasin mujrimu naayil kawaaiba wal qawaaliya waxtadil in tabnu minha min radan laa tuslamu laa tastari dunya bi bi bi oxra yaa fata man baa nuuran bi dujaa fa sa yandamu dañ coobaa neex kun na nga nekk. Mhm. day jox conseil kiy jàng. Mhm. xale bi toll ci jàng lii la la sëñ Tuubaa wax kun na nekk. mooy soit na nga nekk dalay jox impératif la day wax ak yow. Mhm. kun kaati man na nga nekk di nëbbu. looy li durri wal buusa na nga nekk di nëbbu lor yi ngay am ci école bi na ngay nëbbu lor yi ngay am ci université bi. na ngay lor yi lay dal ci biir daara ji. kun kaati man li durri. wal buusa ak tiis yi lay dal tey ñi nga dégg ñu leen di raamal ñépp jéng nañ leen ba tàyyi yenn nañ leen ba tàyyi gubi nañu ba tàyyi suqi nañu ay fas ba tàyyi bay nañu ba tàyyi añ nañu réeruñu fande nañu ay fani fani fan di sol yu dagg tey jii ñoom ñoo am barke bi kon barke boobu la ñu sëñ Tuubaa mu wax ni li durri wal buusa tanal xas xasdan wax bu am solo am objectif xam nga sunu problème jeunesse ñu ci bëri amuñu objectif. Mm-hmm. amuñu ambition. Mm-hmm. bu ñu copié woo tey ci fii ñëpp tubaab yi la ñuy roy booy seet pratiquement. day waxati ko te ñun tubaab yi ñuy roy sax defuñu la ñu def ñoom. <laughs> gis nga am na bindkatu France bu ñuy wax Victor Hugo. Mm-hmm. il est très célèbre. borom xam amul ku ko xamul ci France. ku ko xamul ci littérature française dëgg la bi mu amee sept ans. dafa bind ci cahier écolier ni je serai comme Chateaubriand ou rien. il ah. ça c'est de l'ambition. waaw. Ah? Ah. sept ans la bind lool. loolu ci dogu la bokk. dogu la bokk te Chateaubriand moom moo nekkoon ci gën a kawe ci ñoom. Mhm. moo bind mémoire d'outre-tombe. Victor Hugo di xale bu ndaw toll ci sept ans dinaa mel ni moom wala du ma nekk dara. mu mujj raw ko. Oh, waaw ba nga xam ni mujj na nekk dramaturge di def théâtre. Mhm. mujj na nekk poète di bind ci poésie. Mhm. mujj na nekk romancier di defar ay romans. mujj na nekk un grand philosophe doublé d'un député en France. bind nag ay volumes yu kenn mënta jeexal bi mu deewee en 1885 on l'a inhumé dañ ko suul on l'a inhumé au Panthéon Panthéon seen bërëb la boo xam seen ah, kàngam yi lañ fay suul seen kàngam yëpp fa la nga kon loolu ambition la xoolal ku mel ni Agatha Christie mhm. c'est une romancière boo xam ni des romans policiers des polars lay bind <laughs> Agatha Christie bi mu amee at yu néew ay 12 ans dafa am bindkat Angleterre bu mag bu ñuy wax Sherlock Holmes mu liir livre am mu impressionné ko mu koy bëgg a roy magam sëram ni ko ni ngay sob loo ne di nga ko mën waaye kii di nga ko fi bàyyi du yàgg ba nga mel ni kii mun dinaa ko raw mu mujj nañu ces ces romans policiers sont vendus à plus de quatre-vingts millions d'exemplaires à travers le monde. waay Agatha Christie. moo doon créé Miss Marple ak euh, Hercule Poirot. Uh-huh. waaw kon tubaab yi mu topp di leen roy gi sax ñun defuñu ni ñu defee. Serigne Touba nag wax ni nit dafa war a teel ambition. xas xasdan xoolal loolu danga war a am li ñuy wax ambition. am objectif ni damay nekk dara. sunu jeunesse bi meluñu noonu. te sëñ Tuubaa ko dénkaane kuy jàng na am objectif. Mm-hmm. ni damay teg bët ci nangam dama koy nekk ci. dama koy nekk ci bis dina ñëw dinaa defi nangam bis dina ñëw dinañ ma dégg ci nangam tey demal fu mel ni Amérique am na ku ñuy wax Frédéric Douglass. Mm-hmm. dañ ko tuddee foofu benn rue à New York. Frédéric Douglass ku sonn la ci ndawam. bu buñ la waxee fi mu jaar dañ ko xeeboon dañu rax ñoom nit ku ñuul. Mhm. ñu xeex leen ci Amérique sonal leen. moo ko euh, Clayton Adam Powell. ñoom ñëpp am nañ fa ay rue dañ doon bañ ci xeex mujj nañ ci nekk ay lawyer yu mag ci wàllu justice ñuy àtt ci seen réew. Mhm. ay noir lañu woon mhm. ñu euh, maltraité leen. ngir seen der ah ñu nootoon leen. ñu nootoon leen loolu ambition tax ñu egg foofu. soo gisee ku mel ni Martin Luther King. Euh, bi muy wax ni gént naa. waaw bis dina ñëw dinañu àtte. nit ku ñuul ci comportement am mm. ak mbaaxam ne kenn dootu ko attee ah, ci ñuulaayu der bi mm-hmm. I have a dream mm-hmm. that one day my four little children will live in a nation mm-hmm. where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character muy wax loolu te dem na ba àgg foofu sëñ Tuubaa ñu ko wax loolu demal ci Masaalikul Jinaan dafa bañ ñu complexe ci sunu der mais est-ce que tey base base boobu moo ñu base moo ñu manqué parce que euh, ku ne xam na ni que euh, euh, Serigne Saliou bi muy toog dafa ne jox leen ma ndaw ñi ma def ci ñoom la Serigne Touba daan def ci mag ñi donte yelloo ma ko ma barkeloo ko. waaw que du tey bi moo ñu manqué. base bi base bi manqué wul sax. Hmm. ñun ñoo manqué ñun. ñun ñi sunu njaboot ñoo manqué. ñun ñi tuddoo murit te mënuñoo jël sunu doom joxe ko ca daara ñun ñoo manqué. Hmm. ndax base am na sëñ Saliou bi mu waxee loolu jox na nu base. waaw ah. jox liir man ndaw ñi. waaw ma def ca ñoom la Serigne Bamba doon def ca mag ña ca mag ña doon te ko sax waxul pour moom de moom yeyowu ko ndaw ñi ñoo ko yeyowul doon te yeyowuñu ko sax ñoom ndaw ñi mm-hmm. nu barkeloo ko ci liggéey gi mm-hmm. ndax nun li sëñ Saliou def ci ndaw ñi jomb na ndaw ñi jomb seeni baay tey ñaata la defar ci ay ndaw yoo xam ni tey dañ mën cee teg baaraam mm-hmm. benn ngi nii de benn ngi ñaata la defar ci ay ndaw yu nu mën a teg baaraam di leen joxoñ tey ñoom ñoo nekk ci secteur informel bi di ci liggéey di dog ay buumi gàcce du ñu sàcc du ñu wax lu dul dëgg du ñu tappale ñooy nekk ci mbedd mi di jaay seen café Touba gu lew di ci fàgg lu ñu suturloo ñoo defar ay bërëb yoo xam ni dañuy defar seen maktab seen bibliothèque di ci génn ay téere xam-xam di ko jaay di jaay xasaayit yi di ko wecc nit ñi di ci xame seen diine te di fàgg lu lew ñooñu ñoom ñoo nekk ñu woyof ñoo xam ni rusu ñoo dem ci mbedd mi fekk oto bu gaar yi ñu koy fomp di ko fompal borom. Mhm. mu jox leen ca seen wërsëg. ndax dundelu leen lew du ñu ñaan du ñu taxawaalu. Mhm. ci dignité la ñuy fàggoo lu leen lew di def kas bul xalaal. ñoom ñooy dem ci këru ñi am barke di leen jàngalal seen njaboot. yu mhm. leen ciy fay luñ ci for du ci dundal seen njaboot ñoom it. ci seen dignité ñooñu ngay fekk ñu nangoo liggéey te du ñu yàq. ñoom ngay fekk lu ñu am ñu ciy dimbali seeni i wéjur ndax sëñ Saliou noppi ci ñoom te ñoo gën a jub ñëpp ëpp ñëpp xam-xam gën a sell ñëpp ay jikko ndax sëñ Saliou la mu waxoon la def ci ñoom da ngaa mës a gis koo xam ni trois dina koy sóor moo loolu daa am fenn par jour par jour trois tonnes trois tonnes sëñ Saliou ko daan déggee waaw ci koo xam ne amoo subvention boo xam état la koy jox dara déedéet parce que lal la dafa dégg sëñ Touba